loolu kon nak Bambey TV en direct fi ci Somone nga xam feng Seigne ne sëñ Fallou ci genn kër fi gis nga taalibe yaa ngi di gisal seen bop di ziar fi nga xam fi la feñ moy photo bi photo bi ngeena gis ni fi la Seigne Fallou feñ taalibe yeba a ngi di xol ña ngi ziar kon lu jëm len ka jëlal Fallou feñ nga yi ñu farlo ci Seigne Fallou wa ñi nga ni mo dund zéro faute ñaari jukko yi waaw mu ngi nii su lu baax rek ku ne lay feeñ waaju baax jooju gis nga taalibe yi mbokki taalibe yi ni ña ni ñay ñëwee di ziare poto bi fii si Somone en direct la waaw gis nga yaa ngi nii fii la feeñ kon Modou ñu ngi lay defal vidéo bi en direct ak Bambey TV taalibe yaa ngi nii ña ngi ziar kër gaa ngi fees del fii si Somone waju bax ji waju sel ji walu tejj ji sëñ Fallu moo ne nii waaw mën naa mën naa jël fii fi mu feeñ booy mayoon may ma jël may ma ci nga talibé yi na ñi ngi ni di raay ñane photo bi fi ñay gis nga ñay lay ndànk rek ndànk rek yéen nee na photo bi li sëñ Fallou feeñ fii nii ngeen gis ci suufa suufa suufa suuf mu ngi nii mu gis ni kon kon gis ngeen chef de quartier ngi nii sax chef de quartier bi ñëw na mau kita nga mbokki taalibe yi mbokki taalibe yi TV waaw Ndofane gis nga gis nga histoire bi fekkee nga ci lu bari Ndof. ah. ah. kon sunu mbokki taalibe sunu mbokki murit yi sëñ Fallou fii la feeñ fii si Somone du Diaz te xam nga talibé ya ngi fess fi del keur gi nga xamné ni Sadj la santé waaw gis nga bokki talibé yi waaw ñi ngi di ziar ma kon Modou Bambey TV amanti na gan gu bes ya gis talibé yi keur gañu fess del koo sànni mbattu mu tok ya gis talibé ya ngi ni ñi ngi ziar woto bi nak dañ ko encercler ay ay mat yo ko encercler ku bëgg ziar di nga di nga di nga fo nga buuxante pour mëna ziar sa sëriñ kan la sëñ Fallou kon Modou yaa ko gise noonu en direct la fii si Somone tey jii si bésu àjjuma ji di ba su settu mbar yaa ko gis moodu mbokki taalibe yaa ngi ziar maa ngi la koy jëlal en direct noonu man la Pa Ousmane Sadji Bambey TV sa kaw sa kanam rek waaw tele bu bees bi tele bu bari doole bi ku bëgg am information yu bees ñëw si Bambey TV joor ah photo bi da gis sëñ Fallou Modou yow fekk extra non kon Modou histoire baa ngoog l'histoire retiendra fii si Somone tey si bésu septembre bi àjjuma fii la sëñ Fallou feeñ fii si Somone si kër Adji saw fii si Somone waaw